kenn ku ne ci turam ak santam moo di Njaay Rahma naxut waa kawlak dundeewut Kaolack waaye jafe na ci politiciens yi ndax koo xam ne soo liggéeyee ba dajalee dara ñëw bokk koog waa Kaolack kon Modou Ndiaye du ñu def lu dul gërëm la sant la ci sa taxawaay taxawaay bii yombul ci politiciens yi ndax politiciens yi dañuy dundee ay militants di dundee Kaolack di dundee waa Kaolack waa yow day wax dëgg yàlla ku gis ni ngay doxalee xam ne jar ngaa jàppale jar nga àndat ndax fàttewoo waa Kaolack waaye maa ngi ñaan rek waa Kaolack buñ fàtte moo duñ jaay raxma ndax moom ngeen di gis su tabaski jotee moom ngeen di gis su gàmmu jotee moom ngeen di gis su korité gisee moom ngeen di gis su laaj financement jotee moom ngeen di gis kon jóog Modou Ndaye Rahma nii seen doom la seen jarbaat la jàpp leen ci ba lim bëgg mu am moon Ndiaye nag tey dama laa bëgg a ñaan benn mbir rek mooy nga prononcé wax li nga bëgg pour nit ñu ànd ceeg yow man de loo bëgg mu doon politique wala leneen danaa ci jàpp ba mat sëkk tey damaa bëgg nga prononcé wu nit ñi xam fi nga jëm ak fi ñu jëm ñun loolu laa bëgg tey loolu laay ñuy ñaan. di wax ne jotaay bii rek loolu sëkk ci xam ne ak ñu xam kan mooy Modou Ndiaye Ramé kilifa yii mu fi dajale lu leen mën di teralee ci àdduna ku toogoon sa jigulal sa bàyyi cheikh al sa maam cheikh al sa maam cheikh Abdoulaye Niass ak man mu suufee nii kenn ku ci nekk sama liggéey loolu loo xamante ni foo toog ñu fekk dafa teraanga si ba karam dina ko jox sa teraanga waaye yaa ngi ànd ak président Macky ci sa ngor yaa ngi ànd ak président Macky ci sa teraanga yaa ngi liggéey liggéey boo xamante ni tey sa soo kaw de sosoo Kaolack waaye tey koo wootee ku woote woon nga woote yaakaar naa ñu bàyyi woote yëpp ñëw wuusi la li ko waral nag li ko am yàlla mayal la ko sa bopp nga mënoo ko sa bopp sa njàmbaar sa liggéey ñaari waajur yaa ngi ciy dimbalante ak doomu aadama yi kon foo joxal nit ñi nit ñi fekk la fa damay wax ne kuy woote ci yiwu yàlla foo nekk yàlla fekk la fa waaye foo woote ni la fekk danañ dimbali li la yàlla jox yaa ngi bokk doomu aadama yi kon yaay jërëjëf ñu ngi lay suñu xalifa ñes wax nag doy na sëkk ñii lay gunge te gunge nga xam ne buñ dëkk lañ jëm kon da ngay désigné dëkk bi nga jëm ñu xam ndax da ngay yem Fatick da ngay yem Gandiaye da ngay àgg Mbour da ngay yem Dakar te man de la ma xamoon ci yow xaw ma woon ci yow xaajal bu ab dëkk li ma xamoon ci yow jóge ci dëkk dem ci dëkk waaye nag fii ba Dakar dëkk ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo interpellé wax ci muy Serigne Khalifa Ibrahim ak Serigne Babacar Mbacké mu kabaru ma ne dama ne ñoom ñaar bu fekkee suñ mbokki murid yi dañuy wax aslamtu moom la jëfandikoo aslamtu ci arab mooy jébbalu naa loolu lañuy wax ñoom noonu la ñuy baat boobu la jëfandikoo ma ne bu dee suñ mbokk yi la ñun dañuy wax jël nañ tarixa wala jokk nañ ah ñaar ñaar ñaar yi ma wax ñaar yi ma wax firi na ñoom li ñuy laaj ñaar yi ma wax ñaar ñi laaj ku ci nekk rek delloo naa la ci pénc bi nga yore pour nga xam ni ma bëgg a wax waaye ànd ak loolu lépp waaye ànd ak loolu lépp waaye waaw <laughs> mane ne mane ne ma ne waaye loolu lépp waaye ànd ak loolu waaye ànd ak loolu li ma jàpp mooy ñun amul niñ tiit xam nga dama ne ku am Maulana Cheikh Ahmad Bamba ku am Maulana Alhaji Abdoulaye ku am saaxibu dahri wa zaman xutbu zaman Maulana Cheikh Ibrahim amuloo looy di tiit amuloo looy ragal quelque soit lu ñëw ci suñ kanam incha allah quelque soit lu mën a ñëw suñ kanam na fekk mu nekk mu nekk bëgg-bëgg ki ñu wax na aslamtu wala jokk nañ rek mu président Macky Sall bu ñu xamee bëgg-bëggam bu ñu xamee bëgg-bëggam bu ñu xamee bëgg-bëggam incha allah ca xam na loolooy dëgg loolooy bëgg-bëggam ñii ñoom pas-pas bi nekk suñ diggante amul benn sikk ci ne danañ ci jàpp pour loolu am yàlla na nekk sun yàlla na bëgg-bëgg boobu muy bëgg yàlla na fekk na mooy njariñu Kaolack yàlla na fekk na mooy njariñu région bi yëpp sëriñ bi maa ngi dalal sa xel bu baax ñàmbaarte gi ñu xamoon ci yow ba nekkoon ci sa keppaar fit ak jom ak jéem a bëgg dara gi nga xamoon ci ñun incha allah dara du ko soppi sëñ Babacar Mbacke am na fit nag wax ji yàqu la damay wax ne combat yi gën a danse ñaari minute lañ ciy wax téléphone mu exécuté affaire bi jeex ñu tasaaroo kon kon amul lu ñuy tiit incha allah ca it bi ñaan leen yàlla rek maa ngi ragal ne incha allah lépp luñ bëgg fii yàlla ñu dimbale ba ñu réussir ko yàlla ak seen barke bàyyi ak seen barke maam yi mën nañoo yóbbu ci loolu maa ngi xam nga nag car macha allah fii ñi fi toog ñëpp nga xam ne ay kàngam lañ seen xel yi xaar macha allah dafay xel di xel di ci politique euh, damay wax ne li gën a metti ci jotaay wala ci ànd mooy ànd ak doomi doomi nuuraaniya xam nga doomi ya dafay jeneer dafay xelmati dafay gis dafay jëli dafay décorté ay mbir yu yegg seegut moo tax ànd ak ñooñu moo gën a compliqué ci ànd waaye ñoom ndeysaan comme yàlla daf leen a natt ñu bëgg ma maa ngi gëm ne man aw ma dara lu may ragal aw dara lu may tiit